mbokk yi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di gërëm ñëpp di leen sant yéen ñi suivre solution TV ci 30 minutes chrono ngeen ci ànd ak Omar Bun Khatab Gueye di gërëm baax El Hadj Modou Diouf Ablaye topp ak euh, Sanjogu Sonibou hmm, Aïcha Assane Mesere bu maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw ñoom Kandji ak Souka ak Betty ah groupe solution yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di sàkku suñu borom defal ñu jàmm ñun ñëpp ñu koy def saa ne nag euh, di dellusiwaat ci actualité bi fas yéene waxtaanee réew mi ak fi mu toll ak li jëm ci Ousmane Sonko ak euh, la ñuy xaar ca Ziguinchor jëm ci radié bi ñu ko radié woon ca liste électorale yi ak lu mën a xew liñ ci war a xam rek mooy verdict du vérité. verdict du vérité parce que tey ñi ngi xaar naan dañ koy rajee yóbbu ko ci Ziguinchor lu tax ma ni verdict du verité yoon yàgg naa àtte jël nit teg ko daan jël ay mbiram ne nii la demee ci Ousmane Sonko waaye loolu yoon di wax du la ñëpp di gëm loolu tax ma ni verdict du vérité parce que ci mbiri Adji Sarr fu mu mujjee ñun mooy corruption de la jeunesse est-ce que verdict boobu yoon joxe lu ñëpp gëm la li jëm ci direction des élections ak ñàkk jox parenage bi ñoom danoo jàpp ne mooy yoon mais est-ce que loolu ñu joxewoon mooy dégg loolu tamit mooy amaat tey jii ci mbiri Ziguinchor ak lu fa mën a jóge ak lu mën a xew jëm ci Ousmane Sonko ak contexte bi li nga ci jàngat rek mooy nit day jege ay mbokkam te nit day ànd ak ay mbokkam njort bi ma ci am rek mooy maanaam sàcc ndënd yomb na waaye fa ko tëggee moo jafe waaye ndënd liñ sàccoon nag ci ndakaaru tey jii war ko dem tëggee ci mbokki Ousmane Sonko est-ce que loo loolu dina yomb jëm ci ni dañ koy rajo walla déet jëm ci mbiri contumace ba léegi damay dellu ci verdict du vérité ak Ismaïla Madior li mu ci wax li may faral naan Ismaïla la bu ko neexee bu ko neexee mu doon maajoor di ci wax ñaari wax ci koo xam ne dafa ne moom dafa mokkal droit mokkal yoon te man ma jàppoon ni rek téwéri théoricien du droit la te loolu ma jàppoon bi remaniement bi ñëwee ci kanam incha allah dinaa ci dikk dafa mel na Macky Sall loolu xam na ko parce que théorie mooy li gën a yomb ci àddina théorie mooy li gën a yomb ci àddina kon usman Ousmane ko tey jii nguur gi walla yoon wax ni Ousmane Sonko moo am ndam rajee bi ñu ko rajee du yoon loolu moom dañuy bett waaye bu amee mooy yoon bu amee du doon verdict mais vérité ndax ay verdict yàgg naa am ci mbiri Ousmane Sonko waaye nag du doon vérité mais tey ji xaaruñu verdict vérité la ñuy xaar vérité la muy dëgg gi lii la yoon wax kan moo am dëgg ñu jox ko ko loolu tax lay xew sa jigéen soor am solo kon juge bi tey jii na wax vérité parce que mun nga wax verdict boo xam ne nit ñi indi laat la texte yi laat la yoon na la da ngaa juum ndaxte article sangam article sangam loolu dafa dem ba ci Ismaïla Madior mi fi jógee bari na li mu doon wax bu naree tappale du wax article ku xam yoon la mais bu waree tappale xel rek lay waxee xel te li muy waxee xel loolu ñëpp mën nañ ko ñu jàngul droit sax mën nañ ko mais droit dañ ko tënk ci ay texte ci ay article mu doon code penal ak code de procédure penal léegi li yoon wax ci Ousmane Sonko bu dee dëgg la nañ ko jox dëggam ñu jàpp ni ku mën a bokk la ñu jàpp ni rajo bi ñu ko rajee du yoon ak anam gan ko defee looloo tax tey jii li naan verdict gu vérité saa su ne yoon bëgg a dugal galgal parce que Ousmane Sonko bu dee nii dan ne ca Ziguinchor lay voté élection maanaam ca Ziguinchor lay voté élection fa la bind ci liste électorale yi ñu war a taxaw ñu ne Ousmane Sonko léegi ndakaaru gi lañ ko war a jugé te plainte ba dem ca Ziguinchor moom comme dañ ne dañ ko rajee ci liste électorale yi te mu bind woon ca Ziguinchor comme kay bu ñuy lijjanti lool nañ ko lijjantee ca Ziguinchor loolu la xel gën a nangu looloo tax des fois ñun suñu yoonu réew des fois da ngay poser question bëgg leen bëgg nañ leen a respecté ñun parce que man bu ma nit tooñoon dama koy yóbbu ci yoon bu ma jotee woon ak nit ci yoon a koy atte waaye yoon woowu tey na respecté boppam àddina dafa lii rek ñu ne respecté leen institution yi respecté leen justice bi respecté leen président mais ñoom ñoo ko war a njëkkee ci seen bopp maanaam respecté seen bopp di jaar ci yoon ñoom bu dee jaar ci yoon ñun ñu jaar ci yoon day yomb mais bu dee ñoom dañuy teggi yoon te ñoom ñoo ñu jiite li naan bu yoon wi doxul ko ko jiite la te tey jii ci mbiri Ousmane Sonko ak yoon daf bari yu ci xew jëm ci mbiri Adji Sarr parce que mbiri aji saar mënoon naa yem ci comme ni ko capitaine Touré waxee ci enquête bi capitaine Touré bi mu génnee dinga nga dama bëggoon a sauver Sénégal parce que xam naa ni lii fii rek lay mujj parce que dañ ko jiiñoon viol boo xam ne agression da cee topp mais bi ñu demee ba jamono yooyu yëpp dañ ko dindi pourtant yoon la mu namoon ci son ko def na ko mooy bëgg ko fitnaal bëgg ko teg ay daan mbiri Mame Mbaye bi juge yaa xam Keita di génn tamit noonu la woon deux mois la ko joxoon comme koo xam ne dañ la jiñ mbiri diffamation pen bi du diis daani du diis te mënoo cee ñàkk cee droit civique ak politique te loolu bi mu amee maître Olivier Sur di attaquant bu mu di avocat bu Mame bi mu génnee presque bi yëpp dégg ko micro mais lan la wax mooy verdict bi verdict d'apaisement la mënul yàqal dara Ousmane Sonko ci carrière politique am ñu dem ba ci mbiri contumace gi bi ñu demee ne dafa sàcc ab portable jàmbur yu ñàkk fayda yoo xam ne kenn xamul lu mu doon jàpp Ousmane Sonko yóbbu ñu bari danoon njort ne Ousmane Sonko bu demee contumace bi day daanu comme def na acquiescement kon bépp daan bu ñu ko tegoon day dañ mbiri Adji Sarr ñu war ko attewaat mais bu ñu génnee leneen lañu Ismaïla Madior Fall ak yoon doon wax dem ba ñi nekk ci li ñoo xam ne seen yoon nekkul ci yoon ñu sax dugal ci seen làmmiñ dugal ci seen doole mooy direction des élections kon ñii jël ay daan di ko teg Ousmane Sonko nan xam ne verdict du vérité di nga li xel nangu ak dëgg yàlla mooy tàggat nit ñi ba boo ko yëkkatee ñëpp gëm ko kon tey jii ñun duñ fi taxaw naan Ousmane Sonko dafa set wicc de mosul tooñ kenn mosul def kenn dara mais nan ko atte ci aqulaay taala atte ku ci ñu yoon waxee koroog dama koy wax sax naan intime conviction moo dina ma jarul intime conviction parce que fii yoon dafa tëral lépp teg ci ay textes nanu utiliser les textes utiliser code pénal code de procédure pénale réew mi ay boroom xam-xam di nga suñ teg yi ñu bind ci réew mi di constitution bi di euh, li jëm ci code pénal ak code électoral ji nga billaahi dañ ko bind bind bu rafet bu doon ni suñ borom xam-xam yi tey jii danoo maandu jub ci wàllu yoon di ko teg na mu war a tegoo billaahi bu ñu tegoon loo xam ne Ousmane ko muy dëgg mu tooñ ñu teg ko dëgg jaarale ko ci yoon sénégalais yi maandu nan maandu gu toll ni billaahi dañ ciy ànd xam lu ñuy wax Ousmane Sonko danaa ko yaa tooñ bu doon ni rek dañuy jaarale lépp yoon on ne va pas se poser des questions mais Ousmane Sonko ñaata plainte la dugal contre El Hadj Diouf contre diw contre diw contre diw contre diw mais plainte yooyu mujjul fenn daf mel moom amul benn àq ci yoon alors que la justice ah elle est générale et impersonnelle dana yoon ñëpp ko bokk kenn war ko aaki ki gën a ñàkk fayda ci réew mi gën fee tuuti moom dafa am àq ci wàllu yoon kon tey jii jot na yoon jubbantiku yoon defaru xoola korog li xew ci cour suprême procureur bi dafa réquisitoire am ba ne direction des élections amuñu sañ-sañ di tere jox Ousmane Sonko lii di euh, kayitu parrainage mais bi juge bi wax day wax même même bi muy joxe verdict bi sax <laughs> wallahi azim da ngay xam ne verdict du vérité ndax de wax na lépp ci kaw waaye ba mu demee ba war a joxe verdict bi lépp ci suuf la ko doon wax lal la li ñuy xumtoo ci suuf te bañ ko wax ci kaw lool lan la kon nanu teg mbir yi ci yoon Ousmane Sonko bu dee yoon da ko xañ ñu teg ko ci yoon mais bi dee yoon da ko jox dëgg ñu jox ko dëggam loolu rek lañuy xaar te loolu rek la ñaan parce que yoon dafa jot mu siggi wane ni nag yoon la wane ni ba léegi am na ci ñoo xam ne tey ji korok ji nga bi Marème Diop Gueye waxee procureur bi ñu bari daan ne réew mi de di fi wodd sax moo gën takk fi tubéy ndaxte li yoon yëpp ragal wax benn jigéen moo taxaw wax ko te gëm naa ni am na ay juge yu dëgër ay juge yu moom seen bopp ay juge yu am fayda ay juge yu wax droit man gëm naa ko kon lu mën a xew nan ko teg ci yoon rek wax verdict ak wax vérité daa wute loolu nag moo ñuy yóbbu ci beneen point bi ñuy dem mooy ci euh, euh, rebëjëment gouvernement bi man rebëjëment laa ko tuddee parce que mën nañ wax ni c'est du n'importe quoi fooye gi ñuy fooye réew mi te heure boo xëy di ci teg sa gët parce fooy réew mi rek mënta weesu tey jii ñu toog juróomi fan amuñu gouvernement ñépp taxaw di xaar mais bu doon ni sax xaar bi dafa yàgg bu ëmb bi yàggee bu doom ji juddoo sax doom doom ju mën a xool mais li ngay jàngat ci gouvernement bi ak xaar bu yàgg beeg li mu jur yépp mooy bu doon ni ab ëmb da neen dafa avorté ndaxte gouvernement bi ak bi fi jógee dara wutalewul leen ci jamono joo xam ne dañ réew mi dafa sëngeem dund gi seer courant bi seer ndox mi seer réew mi ñëpp di jooy ñii di dëñe ak di gobar jaasi xale yi di mbëkk gàlloo ci di dem ca tugal napp gi doxatul artisanat bi doxatul waxuma la ñi amul métier mais ñi am métier sax ñi ngi bàyyi seen métier di dem ca bitim réew ñi seen bakkan di ci des li lay wan ni danoo avorté mu doon une mission impossible pour Amadou Ba mooy Amadou Ba démb bi mu waxee tubaab bay wax wolof bi mu waree wax ci emploi des jeunes da ko sax fàtte seetluwoo dafa gestu soo xool le secretaire général du gouvernement pour mu fàttali ko ni emploi des jeunes ci gouvernement de combat ak gouvernement de mission bu dee nag mission moo ko tax a jub mission impossible la boo xam ne tey jii dénk nañ ko ko maanaam gouvernement wu ñiy dëbb ndox la du mës a mokk mukk ci àddina parce que li nga deful ci dix ans mënoo ko def ci cinq mois cinq mois yi bu ñu diggee Sénégalais yi ne mën nañ régler seen problème waxuñu dëgg ndaxte réglé wuñ ko ci douze ans yi lan lañ def ci emploi des jeunes lan lañ def ci xëyum ndaw ñi. la leen def ci wér-gu-yaram la leen def ci courant tey jii rek jamono ji ñoom Oumy Ndour dem di jooy courant bu seer tey rek xibaar nañ ñu ci Seneweb ni courant bi day gën a yokkaat kii xaar mu wàññeeku bu yóbbu nga dóor sa loxo ci ëkk loolu mooy wane ni ñii ñu fi teg ñëwuñu pour régler suñu problème mais dañoo ñëw pour la seen problème loolu nag mooy sénégalais yi am seen fulla am seen fayda te li ci jàng rek mooy Macky Sall ak nguuram dañ daan suul ndaanaan maanaam suul ndaanaan mais léegi danoo rafle ndaanaan parce que boo xoolee ni gouvernement bi tëdd ak juróomi fan yi xaar yi maanaam lii mënoon nañ fi te gouvernement boo xam ne Sénégalais yëpp dañuy yëkkat seen loxo na non ñii nakate xaar bu yàgg bi lii la woon mais démb ñëpp ñu am déception ñëpp ñu am déception parce que reconduire nañ ay ministres yoo xam ne pour dire la vérité mais ministres yooyu durant deux ans yi mujj yi nii Pape Malick Ndour lan la def ci politique de jeunesse lu dul saaga Ousmane Sonko ban koy tudd ci mbiri Pape Abdoulaye Touré maanaam kooku ban xale mooy xool Pape Malick Ndour di identifié wu ci Pape Malick parce que joxewul le bon exemple la politique de jeunesse lan la ci def ak ban xam-xam ban débat la mos toog wax ni fii laa jëmee ndaw ñi ak lii laa defal ndaw ñi nga indi Mame tey jii tourisme mooy koo xam ne da ngay jaay la destination Sénégal maanaam yow à travers sa jëmm rek ñi nekk bitim réew dina naw réew mi mais kan mooy xool mam mbay ñaa ak ni mu doxalee ci Prodac bi biir Sonko yi ak kàddu yi muy yëkkati Mame Mbaye Niang tey bépp touriste bu dugaloon turam tey touriste bu dugal turum mam mbay ñaa xool ko ay vidéom ci YouTube ak feneen dégg muy wax rek boo bëggoon Sénégal sax mën nga fi jaare bañ Sénégal ndax li mu waxul ci mbiri Ousmane ko ci wax ju ñaaw juutal fii lii di ci koo xam ne ab ministre nga doon ab institution kooku ñu reconduiraat ko kooku lan la mën a indil président Macky Sall tey jii nga ñëw ci Moussa bokkar Thiam ñun la mooy ministre communication tey jii ci wàllu communication ci télécommunication musaa bokkar cam moo baatu record yi moo fi fekk ab télévision bu mag bu dool ne Walfadjri mu tëj ko weer te tegu ko fenn tëj internet tëj TikTok ci moom la xewee jamono joo xam ne ci wàllu télécommunication télécommunication yi enjeu yi enjeu yi mooy économie numérique maanaam mbiri internet mooy doxal àddina bi démb maa ngi dégg Mohamed John di ci wax sax mais dinaa dikkaat ci moom moom tamit tey jii waroon fexe ba foo nekk ci réew mi di am réseau foo nekk ci réew mi di am internet internet yomb ba sax jaratul jëndi parce que am na réew yooy dem foo taxaw mun nga connecté wu foofu la àddina toll ñoom ñu ko doon xaar foofu mu ñëw tëj rajo tëj TikTok moom Moussa ci am ñu reconduire ko kooku ban ndaw lay waxal ci réew mi parce que ndaw ñi ñi ngi ci réseaux sociaux yi kooku ban ndaw lay toog di waxal ci réew mi mu koy déglu pour Amadou Ba falu korog dama ko wax ci tàkku sow nee naa leen am na ñoo xam ne booy wuti buy ànd ak ñoom ndax da leen a jëppi Amadou Ba waxuma jëmmi aar Amadou Ba man mais ñi mu nar a àndal pour wuti ku ànd ak ñoom doo am tey jii ñi ngi naan Ismaïla Madior ak Antoine Diome da leen fee jëlee parce que ni doon defee justice bi ak yooyu Antoine jom Antoine moo battu record yi ñu bari den naan des fois dama contre Antoine man leen noo contre ma ko billaay xaw ma sax Antoine Diome man nit ku may contre ci àddina amul aw ma xol boobu bañu ma kenn parce que nit kenn ko bañ. mais ni muy doxalee lan dul ànd nga nekk un ministre de l'intérieur Antoine bu koy doog fal ci la xale yi tàmbali woon di jël gaalu looce yi bi mu njëkkee ñëw ci gouvernement face à la presse Antoine Diome bi ñu ko laajee ci xale yi dem ci géej gi dafa des boobu dañ doon wax ay cent quatre cent cinquante jeunes yoo xam ne des na ci géej gi mu ne je ne suis pour compter des morts maanaam ku mel noonu ñu def ko le ministre de l'intérieur. maanaam ñu deele ay xale yi ci géej gi nga ñëw <laughs> ne non man ñëw ma pour wàññi ay néew quoi biir ko jëkkee fan sa première déclaration ku ko wér dina ko génnee internet bi dara mënatu fee laaxatu ñu dem ay fan inondation am mu sol ngàndim costume ñëw dugg jàmm gan ndox mi di xuus ma ni kii teewul kii ñu de l'intérieur est-ce que xam nañ li xew dem ay fan mbiri aji saar ay kii judd boobaak tey lu ëpp juróom benn fukki ndaw faatu nañ ci réew mi amul manifestation bi am ci réew mi rek te déggoo ci bakkan bu loru waxuma manifestation politique de même waa Ngor wala waa Yoff di génn rek am la ñuy jooy seen dëkk rek bakkan rot ba ci xasantoo gi ca Kédougou mais ci loolu lépp am ci magistère u Antoine Diome ñaata nit lañ fi jàpp ci kaso tëj leen accident day am bëreet Antoine jug <laughs> non no non terroriste attentat terroriste kërëb kërëb këpp moom bu ñëwee mooy def constat maanaam moom bu ñëwee en ak que mooy def constat mooy def enquête mooy wax résultat yi lépp moo koy wax xale bi dóor nañ ko bal dee na mu ñëw na noo du du bal lii nii defagun enquête defagun dara defagun auto mais moom da lay jox résultat dem na ba préfet yi ci réew mi waxuma la manifestation politique wala ay parti politique yiy réunion mais ndëpp ndëpp ndëpp goo xam ne ndëpp liberté de culte ci yoof gi jox la ndigal ay préfet ñu aye ko nan trouble à l'ordre public billaahi ci Antoine mi la xewee tey jii kii ñu reconduire ko defar ko ministre ak la mu defoon ci élection législative élection locale ak direction des élections goo xam ne dañ ko nawoon ci jamonoy Abdoulaye Wade direction des élections dem ba doon conseil constitutionnel di raje ay list di bloquer ay list mais doo comprendre lan moo xew élection locale ay préfet eh, oh, kii ay liste yeewi ak wàllu ñu annulé ko ñu dem def recours recours bi jox leen dëgg Antoine taxaw na préfet yi dem leen porter plainte loolu fii la xëy ci Antoine di nga ku mel ne Antoine mosul am ci ministère de l'intérieur Sénégal billaahi man li ma jaaxal mooy temps bi ko fi bàyyi yëpp yëpp pour mu nekk la ministre mais Amadou Ba moo yey bañ a bokk ak Antoine ab ministère dem ci kilifay diine yi Touba Tivaouane islam bu bees duñ ko nangu Sénégal terrorisme duñ ko nangu Sénégal ci loo xam ne justice waxagu ci dara waxagu ci tasparti jàmbur yemoo ci tasparti bi mais permanence ba nga tëj ko daggati photo ya sànni ba ci Ngagne Demba Touré mii mujj ca Maroc mais sénégalais boo xam ne benn daan tegul ci moom kenn xañu ko dara du kenn topp ko ci dara dem di renouveler passeport am ñu bañal ko ko Ngagne nee na ci ordre Antoine Diome mi tey jii bu ñu demee bay yóbbu Sénégal sur le plan mais Sénégal lu ne xew na fi mais mosoo dégg ay kilifa jug na dañuy yóbbu Sénégal CFA yi à cause de kii da naan ay ministre gaz pétrole mais pour man war woon sax doon ministre dañ ko waroon a jële ci gouvernement bi ba du doonati dara parce que yii yëpp du luñ ko sosal du luñ ko fenal du dara ku la neex jàpp ku la neex tëj xadd gal lay na ñu yóbbu la téye ak googu ay milliers de jeunes nekk ci kaso bi am na ñoo xam ne seen biir kër yi Sébikotane lan leen fekk ak Kër Massar di leen jàpp di yóbbu di leen toroxal te yooyu yëpp ay nit ñoo jox ordre pour loolu mais àdduna yàllaay boroom wax naa ko sànq li ci kanam raw li gët léegi nga ñëw ci Ismaïla Madior moom waxoon naa ci jëm ci ay contumace ak pour man Ismaïla da doon politique rek mais yàlla du nit te àdduna yàllaay boroom nguur gi yàggatul lu jeex bareetul tey jii ñooñu bu leen ñi ma tudd nii lu tax ma tudd leen ñoom ñëpp dañ leen defaat ministre kon lan moo fi bees alors que bokk na ci li xajamal ñaari at yi ci réew mi ministère yooyu danoo bokk ci ministère yi gën a jëpp ci réew mi ñooñu nga jël tabaat leen ne dangay uti Amadou Ba. xaju fi mais boo dee dafay tas gouvernement da nga fa waroon indi ñun mën a xool ñoo xam ne bu ñu leen xoolee duñu fàtte mais Ismaïla boo xoolee image Ismaïla lu mu lay fàttali métit Antoine lu mu lay fàttali métit keneen lu mu lay fàttali métit ay personnage tey ji le ministre des sports nga nekk LONASE xaw ma lu la jiñ dëgg la wala du dëgg Lat Diop tey ji ñu ni ko ministre des sports Lat Diop xuloo wax attaqué saaga ñu ne tey ji ministre de sport te alors que sport kii rassemblé yaa yaatu dënn moo ko mën a yor sport dafa metti amul xaalis mais nit ku yaatu dënn mën nga jiñ lu ne Matar Ba mais ku yaatu dënn la woon mën nga ko jiñ lu ne xaw ma lu mu def ak lu mu deful mais est-ce que discipline bi nekkoon ci Matar mi ngi ci Lat Diop ba ci kanam sport bi tabax nañ fi lu bari def nañ ci résultat yi bari mais ak Lat Diop xool leen li xew xaw ma lu baax la xaw ma leneen mais bu dee ni mu doon doxee ci dundam ni mu doon doxalee politique ci géejewaay la bëgg a doxee lay sport bi nii xamantuma te alors que sport mooy milieu bu ëpp démocratie kenn moomu leen kenn moomu leen boo ñëwee da ngay yaru mun a ànd ak ñoom yaru woo ñu xajamal sa cere tey li naan gouvernement bi gouvernement wu pàccoo la ndeysaan ñu indi El Hadj Momar Samb RTAS bu ne El Hadj Momar Samb RTAS ngay tudd Bennoo Siggil Sénégal tey jii paabo bu ñu jël ko yóbbu ko ci ay affaire bonne gouvernance ak ñoom seen moom moo fi indi woon baatu pencoo réew mi nañ ko pencoo te bañ ko paacoo El Hadj Momar Samb tey jii ma dégg ñu ne def nañ ko ministre li mooy ndab li mi ngi jeex kay dugal sa loxo ndax nag depuis 2012 ku fidèle ci Macky Sall kaddu yam waxoon ca dialogue ba dialogue politique kaddu yi diis jëmee ci réew mi di tëkkuwaay réew moom El Hadj Momar Samb du ñàkk ni kaddu yooyu lañ ko récompensé moom El Hadj Momar Samb RTS doon mag jamonoy ñoom temps soxo jamonoy ñoom diw ak diw te El Hadj Momar bi ñu xamoon démb mooy koo xam ne danoo jàpp ne ci ay principe ci ay valeur lay dox ci lu bari lu gouvernement bi noonu mu tëddee moo tax ma gëm ni gouvernement de combat ak mission mais bu dee combat kan lay combattre keroog dama ko wax bu dee combat nan fal mbëri ah combat mbëri gën a jekk wala ñu fal généraux yi colonels yi bu dee xeex mën nañ ko wala waa armée bi mais gouvernement de combat contre kii kan la ñuy xeexal bu dee Sonko mun ngi tëdd na lay xale yi nee na xeexatuñu ñiy dem nañ ca mbëkk nañ gaal loo ciy dem. ñii ñi ngi ci réew mi nekk ci leen ne di daas di fanaanal ndax ren di day bette le vingt cinq xale yaa ngi leen di xaar combat le grand combat foofu la bu dee mission mission impossible la pour Amadou Ba parce que koo xam da nga bëgg a nekk président te nangu woo assumer ses responsabilités tey jii dafa waroon a démissionner moom Amadou Ba ne nekkatuma premier ministre mais mbubboo mbubbu premier ministre dem di campagne yi mais loolu xamul luñ ci jublu bu demee ci ab bërëb comme danoo xam ne amul popularité amul bayre dafa paan bayre léegi dañuy fexe ba nit ñi bu demee mbubboo mbubbu premier ministre bi pour def politique am man loolu laa jàpp mais waroon na am courage bi Macky Sall am en 2012 doonul dara Macky Sall loo ko bañ bañ bañ dafa am mérite ci politique bi mu paree pour uti réew mi lépp lu ko PDS joxoon da ko delloo doyog yàlla. yàlla gëm ko wóolu mais da koy wóolu mais lu wax nga ni Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall mais bu yàggee ñu woy la Amadou Sall koo xam nangoo jël sa responsabilité ñu ne ñan la dénk suñu réew looloo tax ay ñoom Mouhamed Dionne ci point boobu laa jeexale ndokk ñoom ñoo yey ci ñàkk amat ànd ak Amadou Ba ñoom Aly Ngouille Ndiaye ñoo yey ñàkk ànd ak moom ñoom Mame Boye Diao ñoom keneen ak keneen lu tax munuñu ànd ak moom parce que du assumer ses responsabilités waaye ñoom tamit danoo jàpp ni ngi assumer ses responsabilités Mohamed Dionne ci laay ñëw dañ ko suivre ak Pam Ngañ mu def émission bu neex nga dégg xam ne boroom xam-xam mooy wax waaye boroom xam-xam bi di wax di ut réew mi moom ak Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye depuis quand la ñuy sonk sonkalu maanaam ñoom dañuy sonk sonkalu waxuñu fi lu bees di nga li ñuy wax yàgg nañ ko xamuñu waxuñu ko bu dee li jëm ci wàllu jeunes yi ci wàllu koom gi ci wàllu ressources naturelles yi ci wàllu croissance bi te réew mi nan lay def ba moom boppam di souverainisme waaye Modou bu temps bi jotee rek nga wax ma tey yoruma <laughs> yoruma horloge nga def ma signe yàlla dogal discours yi Sonko doon discours yooyu ñoom moom lañ indiwaat rek. Aly Ngouille moom la indiwaat mooy justice bi kenn du ko kenn waru ko jël di ko xeexee réew mi dafa war a moomaat boppam waruñu luñ liggéey rek yóbbu ko bitim réew danoo war a jox ndaw ñi liggéey mais yàgg ngeen ko xam mais wax mosoo leen ko wax Mohamed Dione mosu ko wax Aly Ngouille mosu ko wax mais Mame Boye Diao mosu ko wax maanaam discours bañ doon ŋàññee Sonko ñoom ñi tey jii discours boobu lañ indi di Sonko Sonkolu kon ñii danoo jox dëgg Sonko boo leen dee dëgg lépp luñ mës a wax ñoom Sonko toog na ci plateau mais ñoom daawuñu ci ànd ak Sonko tey ñu dem ba tàqali koog Macky Amadou Ba arrangé wu leen ñu bëgg a Sonko Sonkolu maanaam ñoom ci seen biir waxtaan danoo waroon di wax ah lii de Sonko waxoon na ko lii de Sonko waxoon na ko dëgg la lii de Sonko waxoon na ko dëgg la Mohamed Dionne mii moo fi taxaw bi ñuy coow ci mbiri pétrole yi Aliou Sarr Aliou Sall ak suñu 400000 mais Mohamed Dionne mii. moo bi taxawoon ne képp kiy wax ci pétrole bi te xamoo ci dara dina la porter plainte mel na ku moom pétrole bi 2004 ba léegi mi ànd ak président Macky Sall lu Macky Sall mës a def moom ànd ci dama mel na duuru double bouton Thierno Alassane Sall bi mu fi taxawee fipp ci mbiri contrat bi ñu waroon signé total mais moom en tant que premier ministre mais moom moo dem signé ko te génnul sa journal officiel moom mi moo ko def. moo fi dem présidentielle deux mille dix neuf taxaw ni cinq candidats ñooy am avec une suffisance boo xam ne balaa résultat di génn mu toog ci tele bi ne Macky gagné na cinquante sept cinquante huit pour cent mais bi ñu demee ba ngoon te boobu PV yëpp dajewul mu joxe résultat élection yi fi mu fan la ko tegoon ci dooley Macky Sall wéeru ci dooley Macky Sall tey ji wee mënatul wéeru ci dooley Macky Sall mu jug ne non daf ñuy gëmloo beneen discours sénégalais yeewu leen. nite leen ñi da leen ni nax Aly Ngouille Ndiaye la même chose ci Aly lay tëje Aly coowal carte nante yi ñu fiy wax Aly moo fi taxaw dégg ko lu mu wax mu ne bu kenn xaaj réew mi Aly Ngouille Ndiaye mu ne bu kenn xaaj réew mi mais moo fi toog ne dinaa fexe ba ñiy wooteel waa Benno Bokk Yaakaar di suñuy militant ñu am seen i carte maanaam ñi ànd ak opposition bi joxu leen seen carte waaye fexe na ba ñi ànd ak APR ak Benno am seen i carte ngir mën a ji wote nañ fi ba ngoon ñu changé code électoral bi moo nekkoon ministre de l' ba ngoon ñu dem ay 14 heures ñu modifié code électoral bi gars yi di voté ay orde de mission ak ay récépissé je n'ai rien contre lui mais bu ñu nax li ñuy gëmal tey jii xamoon nañ ko démb waxuñu ko Sonko bu mu ko mësaan wax dañ koy ŋàññi mais tey ji nan taxaw nangul ñëpp ni ñoom danoo juum wala li nekkoon du dëgg wala ban koy def tayuñu ko ñu dox dëgg Sonko ci kanamu Sénégalais yépp na li mu doon wax mooy dëgg ñun lañ nekkoon du dëgg mais mun ñu nekk fukki at ak ñaar di nguuru di bànneexu xaar ba nguur gi jeex ñu bëgg ñoo indil discours boo xam du seen discours ñoom lañ gëmoon nañ ci ne te bàyyi ñeneen ñi lañ gëmoon ndaxte dëgg mooy mujj mbokk yi di gërëm ñëpp di gërëm El moo du toog ab lay ah, di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu Cheikh Bara Ndiaye di ko ñaanal suñu borom yokk ko wér jàmm ak salaam ah macha allah ñu koy dalalaat jàmm mu yegg ci jàmm daal am jàmm Sénégal am jàmm ñëpp am jàmm ñu ngi jaajëfal ñëpp mbokk yi kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.